xamante ne moom la ñuy waajal. muy les de rock mbalax. lu ñu war a interpeller état la. parce que njëriñ la loo xamante ne. ay doomu Sénégal ñoo ko mën a jëriñoo ëllëg. le 29 février. place 5-5 lañ koy nga yàlla dinaa teew. te damay bokk sax ci prise yi. salaamaaleykum wa mbokk yi yéen ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar ki ñu jàkkaarloo nag xam ngeen ko mu nekk ndaanaan nekkoon mbër di Zale Lo ñu xam ko ci làmb xamoon ko ak écurie Fass force tranquille mu mujj mu dellu siwaat Fass fas nañ yéen waxtaan ak moom ci lu bëree bëree bëri na sax am na feneen fu mu jaar foo xamante ne xamuñu ko moom mën nañu ko wax waaye fas nañu yéen waxtaan ak moom lu yaato yaatoo ci làmb waxtaan ak moom ci carrière am waaye waxtaan ak moom tamit ci làmb fi mu toll nii dañ koy nuyu bàyyi ko mun nuyu ñu suivre le TV point comme ñu waxtaan ak moom ñu ngi lay nuyu président maa lay fay Lamine di la gërëm kontaan naa trop ci ñëw bi ñëw fii di nuyu Sénégal yëpp di leen souhaiter ba heureuse année ci deux mille. wàcceel deux mille deux deux mille vingt bi ñu nekk nii. kenn ku ci nekk li nga bëgg yaa xam yàlla na la ko yàlla defal may ñu fan nu gudd sutura def jàmm ci réew mi euh, di ñaanal ñëpp jàmm di ko euh, ñaanal suñu bopp voilà di ñaanal suñu association bi nga xam ne dañu ko commencé nga xam ne Moustapha Guèye mooy le président euh, Ibrahima Ndiaye nekk secretaire général bi li nga xam mébét biñ ci am di ñaanal Pape Konaté Malal Ndiaye ak Yaay Jaame Aba Ndiaye di ñaanal ñëpp ñi ci bokk rek di leen ñaanal yàlla mu defal leen jàmm quoi. di ñaan yàlla luñ ci séntu mu dem ba paas suñu njort. waaw di ñaanal Sénégal yàlla su def fi jàmm. ci barke Seydina Mohamed. Tafaat euh, maanaam Tafaatine sax Zallo. Mhm. ku bëgg a xam Zallo. ci tënk kan mooy Zallo boo ñu kan mooy Zallo mooy benn euh, waay bi nga xam ne mu nga dëkk fa la ñuy wax réew maawo mais mu teel a ñëw dakaar nag bi mu ñëwee dakaar nekk fii voilà nekk fii daan góor góorlu ba yàlla dogal yàlla xiir ko ci làmb hmm. mu dem fekk ji ay magam ku ñuy wax Cheikh Mbaba ak juuf nekk fa di nekk seen ginnaaw rek ba yàlla dogal ñu dem écurie mu nekk fa nekk écurie ba nit ñi xam ko. balaa mu ñëw fi nag nekkoon na dëkk ba foofu daan bëri ay mbapat mun naa ne mbapat yi nekk foofu defoon naa fa ay jaloore yu bare tamit aussi waaw foofu lañ ma xàmmee daal bi ma ñëwee fii man bëgguma woon sax bëre mais sama coppe yi nga xamante ne xam nañ ma xam sama mën bëre bi ñëwee fi mbapatu guddi yi daan am loolu amatul léegi mbapat yi daan am guddi parce que presque fii koñ bu ne daan am mbapat moment bi nga xamante ne taw bi arrêté na mhm. mbapatu guddi yi am boo ñoom ñuy dem di gagné ay potu meew ay saabu ñu ne ma pourquoi pas yow doo dem di gagné ndax ñu am lu ñuy ndekkee mooy insister quoi ba mu yàgg ñu forcé ma benn suur ma ànd ak ñoom rek gis affaire yi neex ma commencé quoi voilà noonu laa duggee ci làmb ji ba yàlla def lu mu def quoi. dëkk ba nga jàngee nga jàngee ba bëri ko. waaw xam nga nag boo xoolee suñu dëkk yooyu noonu bu tawoon ba mbay mi jeex. bu leeree nii amul kon courant mais saa bi alhamdulilah il y a tout mm. bu bu bu bu lam bu kii bi ñëwoon noon bu nawet bi jeexoon. Mm. mama boobu gerte yi am dugub bi am gars yi dañu daan organiser quinze jours yi mu daan leer dañ ko daan tëgg làmb bu la demee ñu arrêté bu leere encore ñu kiiwaat quoi. Mm. mama boobu nag suñu morom yi dañ daan tëgg ay làmb foofu di bëre par guddi gi quoi. nga jóge fa ñëw dakaar ma jóge fa ñëw pour liggéey. si dama ñëwoon pour pour liggéey quoi. ñaata at nga def fii dugg ci làmb. waaw mun naa wax ne xam nga man sama papa dafa nekkoon fi doon liggéey nekkoon ci benn société doon liggéey su ma yaay ak wujjam boobu ay booy lañu bu kii ñëwee def boobu mi ngi amoon kër parcelle fële bu ñëwoon def kii def deux mois trois mois dem keneen ki ñëw quoi noonu laa doon def par la suite sama yaay demee man ma resté fii quoi. ba ba comme ni ma la expliqué sànq barke noonu laa duggee ci làmba ji quoi. bi nga ñëwee ban écrit nga njëkk nga njëkk adhéré. bi ma ñëwee écrit bu ma njëkk adhéré mooy ñoom Cheikh Mbaba jamono boobu tubaabu joor fekk nekkoon na faas ba génn fa def écrit Medina. ok bi mu defee écrit Medina ñoom Cheikh Mbaba yi nekk fa comme ñun ñoo bokk benn dëkk ci laa nekk ak ñoom ba ni ñuy demee faas ak Amadou Kati Diop boobu moo nekkoon entraîneur écrit faas mu woo ñoom Cheikh Mbaba parce que jamono yooyu ñoo nekkoon ci Greco bi xamante nañ quoi. mu woo leen ñoom ñu dem foofu ci laa nekk booy ànd ak ñoom dem foofu. ok voilà. Medina. waaw écurie Medina bi ñu jógee écurie Medina dem écurie Fass. écurie Fass waaw ñoom ñoo nekkoon écurie dina ah. bi ñuy dem écurie Fass ci laa ànd ak ñoom. dem écurie Fass yóbbaale léegi loolu ban année la boo boo boo koy fàttali. boobu mu ngi war a nekk normalement bon parce que jamono yooyu dama fàtte quoi ay année 93 ok. 93 jamono yi Moustapha Gueye di première défaitam ci Mor Fadam. ok bi muy ràññee noonu ba Mor Fadam daan ko jamono yooyu la. kon boobu bu fekkee ne commencé ko bëre arène. non non jamono yooyu maa ngi commencé bëre mbapat. sa premier combat Fass nga ko bëree. sama premier combat mooy combat boobu ma lay wax dama dem écrit Fass ay 6 mois 7 mois rek. Mm-hmm. après Moustapha Gueye di bëre ak Mor mm-hmm. bi mu bëre ak Mor man maa bëri woon deuxième combat ba man ak benn mbër bu ñuy wax Tombe Sène. Tombe Sène. sama premier combat moo nekk noonu Tombe Sène mbër bu mënoon bëri gisatuma ko sax léegi. bëri nañu yàlla dogal dama ko daan mais arbitre soufflé wut ma ak jóg talaat sama loxo quoi. arbitre ne continuer balaa may defarwaat mu daan ma quoi victoire la moo ma daan parce que arbitre c'est le kon da nga koo ñàkk. dama ko ñàkk. léegi ba ma jógee toog naa une semaine. Hmm. yoo xam ne nanguma dem entraînement mais xam nga rek jamono yu Père Mbaye gëmoon na ma gëm boo xam ne parce que Tafa Gueye bi comme Mor Fadam daanee après dafa organisé woon ba te bu ma daan ñëw di contact foofu gis na ne man mii kat am naa talent bi te am naa taay bi te war naa ci mën a def dara quoi moom mujjee wax a wax ba mu ñëwaat commencé waat entraînement noonu laa continué waat teew quoi sama ñeneen quatrième combat yi ci def yëpp dama ko daan noonu laa déclassé ba bëre grand combat waaw. bala bëre nga ba bàyyi ñaata combat nga bëre pour ñu xam sa palmarès. normalement bëre na ay su ma juumul daal boo ci boole yëpp yëpp yëpp daal. war na mat ay vingt huit yooyu. lutte avec frappe bi. waaw lutte man na vingt huit. nga nekk écurie Fass Zalo di bëre bu ñu ko joxee poids lourd Zalo daan ko. bëre boobu Fass ñoo la ko jàngal wala lan la bëre ak poids lourd dafa mel ni moo gënoon a yomb Zallo ko bëre ak poids léger noonu ko jàngee bëre wala lan la. waaw man nag wax dëgg yàlla li ñuy wax don don dafay am ci loo gis quoi mais nag comme mësuma def bëre door Fass def nañ ci man lu bari aussi rectifié nañ ma xeex bi mënu ma woon xeex. Mhm. jamono yooyu Tapha Guèye moo fa nekkoon mbër bu mag. man maa ñoom Cheikh Mbaba ñoo fa nekkoon topp ci moom mais yàlla dimbali woon na ma bi ma ñëwee amoon naa ngëm-ngëm boo xam ne dem naa ba ñooñu noonu boo xoolee la preuve li ma def ci làmb ji defuñu ko man takk ci Moustapha Gueye su ma ñëwee mu may daan ma topp ci mu may dóor gants yi su ma ñëwee mu dóor ma ba ma sonn le lendemain su ma ñëwee jël gants yi joxaat ko ñu continuer di boxe dem ba maak moom dafay metti trop bu ñu bëree dafay metti suñu boxoo dafay metti mu may ratifié su ma dóoree ni mu ne ma du nii nii la kati tamit encore xam nga kati moom ñaari champion yi mu defar nga xam ne tamit aussi moom itam mu jàppa ci per mbay Guèye nekk fe nga xam ne su ma defee benn ak soo su ma ko aayee si fi fini dootuma ko def ba bu ma nekkee ci bëre dóor bi am na yu bari yoo xamante ne dama ko daan def mu ne ma du noonu nii lañ koy defee man tamit man nangoo jàng bu dee bëre simple ni yomb na quoi mais bëre dóor bi daa am nooy taxawee daa am nooy songee daa am nooy kiiwee yooyu ñoo ma ko mottali vraiment. Mm-hmm. Mm. nga def foofu ba benn moment nga génn écurie waaw sa génn écurie lan moo ko waral. waaw sama génn écurie Fass erreur nga di erreur a ngi noonu ni xamul dañuy ne samay mbokk ñoo ma jël génne ma dama dem ba gëmma gëm sama bopp moo tax ma génn or ko demewul noonu. dafa am benn combat bu ma bëree rek boo xam ne man ak Ibou Ndafa. dañu bëre combat boobu xawoon am ay malentendu yu ci am. Mhm. bi ma bëree ba pare nag comme jamono yooyu Moustapha Gueye moo nekkoon tête de file voilà moom boobu amut kon jot bu bari quoi man booy yëpp ci man lañu nekkoon ay Tafa Gueye numéro 2 ay Djili Mbaye ay bari nañu quoi ak mbëri Bawol yu bari man maa leen indi woon écurie Fass alors bi loolu amee ma a gis booy ñu dëkk côté Bawol bi ma ne leen damay dem Fass pour waxtaan ak ñoom quoi mais ci ñoom du ma tudd tur quoi mais am na crochet ku ci ñoom. woo Tafa ne ko Zal bàyyi na écrit waaye man bàyyiwuma ma quoi yàlla xam ne bilaayul kitaab bi nii la demee jëlu ma woon intention bàyyi boobu maa ngi benn audi 80. man daal maa yeewu suba gi di dem entraînement rek taal rajo bi déglu Sud FM dég Malick Gueye di wax saal bàyyi na écrit face. Malick Gueye secrétaire général écrit face mooy magumu Moustapha Gueye. waaw Zal bàyyi na écrit face yàgg nañu former ay mbër ñu jóge fa bàyyi mais bu ñu demee dañuy former keneen noonu laa retourné ñëw ma euh, demoon mujjee mu ma dem entraînement suba gi de. ma ñëw toog rajo yi di wax rek di wax rek quoi ma toggalu ma ne mais attends lii nu mu demee nii kooku ko defoon c'était lundi amuk ngoon gi mu dem entraînement Père Mbaye Guèye ne ko yow workat nga doo fi entraîné mu ne ñëwaat lendemain mu demaal mu ne ko déggoo li ma la wax yow workat nga fii doo fi toog mënoo waxtaan ak ay nit ba pare nga rocceeku ci suuf def lu ngay def quoi bi mu woowee Moustapha Guèye wax ko Moustapha Guèye moo woo encadrement écurie Fass informé ñëpp quoi action bi noonu la demee xam nga. loolu la quoi. yow tamit nga jaar fa bàyyi. ah mais attends xam nga loolu bu amee vraiment ñoom tamit balaa ñuy def déclaration télé. wala rajo war nañ ma woo laaj ma loolu nu mu demee noonu. mais man dama dégg rek ci rajo yi laa ko déggee noonu quoi kon ñoom jël nañ seen décision ba pare. ok te loolu balaa may xam ki def loolu après delluwaat naa écrit face bu boobu daf ma jaaxaloon bi ma delluwaat te face. ci nga xam que. sama premier combat ak Ousmane Diop. mooy bi ñu bokkee ci gala bi kalaaf bi waaw ci kalaaf bi. Mm-hmm. daf ma jëloon à Sars Fass Mbao fii laa doon jóge di dem Fass Mbao di entraîner ak moom. parce que moom yàllaa dogal daf ma mësoon bëgg paa boobu daf ma bëggoon billaawal kitaab bi moo ma jël à Sars jël ma à Sars bi ñuy añ këram benn suur la ma expliqué lii ma wax nii ne action bi noonu la demee. ok am na solo léegi des ci écurie Fass ba léegi rek ñu bari ni dem na ba benn moment. yow ak Tapha Gueye yéen a bokk ay adversaire comme ni muy amee ci écrit yëpp ba léegi nii. Mhm. dañ koy gis. Mhm. sa combat ak Tyson. Mhm. amoon na ay temps doon nañ ko wax lu bëree bëree bëri. waaw bi mu bëree ak Tapha Gueye ba pare. lan moo tax sa combat ak Tyson jur la am lan moo tax mujj leen a bëri yéen ñaar. waaw su ma ñàkk a bëri ak Tyson dara waralu ko rek xam ah, nga tam Tapha mënul nekk tête de file écrit face Tyson daan ko ba pare di retourner di bëri waa tax man loolu kese la. balaa mu doon bëreeg moom nag coow li bari woon na Zallo Tyson Zallo Tyson mais yàlla dogal Tapha Gueye jël combat bi bëri ak moom kon nag bu daanee Tapha Gueye non mais attends dootul waaj di bëri ak man. Hmm. loolu kese la. mais dafa ko ko fi tëkk kii. si taa bu suñu combat. man est-ce que mosuñu leen a boole RTS. fa nga laaj ko ba ma wax ku ci moytuwul. non Tyson ñoo suñu génération la man la baabooy Tyson Khadim Ndiaye. ñun ñu ñoo nekk génération. bëri nañu mbapati fii mbapat daan naa ko deux fois mbapat. Tyson bi mu fëlee nag ñoom man da yàlla dafa dogal ma bëri ak Baboy baabooy daan ma. bi ma daanee ma am problème mu bëree. ci laa mujjee retourné dem def qualification fii drapeau chef de l'État dem Fatick jël ko. ci laay daan Yékini bi ma ñëwee am problème mu adversaire bu ma bëreel. ku ñu ma jox mu bañ ci laa bëre ñabali ak euh, balagay mu mag Njaga Jóob doomu Pape Jóob Boston commencé fël noonu quoi dem ba nag Sénégal yëpp di wax Zal Lo Tyson Zal Lo Tyson Tyson tamit boobu daan na ay kii nu mu tuddati daan na ay kàdda gi daan ay ngéelum commencé fël daan Mohamed Ali xam nga ak taay bi mu amoon moo ko permettre jaar ci petit combat non balaa muy bëre Umar Fadam Tafa Gueye la daan moo tax mu daan ñooñu ñëpp quoi lu mu daanee Mohamed Ali jamono yooyu ñëpp di wax nag Zallo Tyson Zallo Tyson après daal ci la ko Tafa Gueye jël mooy drapeau Elisabeth Diouf ci la ko jël mu daan ko bi mu daanee Tyson nag Tafa Gueye ci la commencé dem ci kaw. mais mais boobu est que Zallo amoon na yaqin ni mën na daan Tyson. non si man amul ku ma mënul woon daan jamono yooyu gars yi ñoo ma ëppoon. dégg naa léegi sa bi wax nga ne dafa mel ni ci poids lourd yi nga ëppoon sens que poids léger yi parce que bi may door a fël samay moroom rek laa doon bëreel te dama leen doon daan làmba nag dafa dem benn stade boo xam ne bon dafay am lu ciy laxasu quoi comprendre nga. Hmm. noonu la demee rek mais man amul ku ma mënul woon bëreel. parce que man mun naa wax ne mbër yi fi nekk nii seulement gars yi damay gis ñu naan ceinture bi la am ceinture bi la am mais drapeau chef de l'État cinquante mbër la ñu woon. dañ départ départ nii rek Yékini daan ay cinq personnes ma daan ay cinq personnes ci laa nekkee laay daajal final li ma bëri ci làmba ji nii fii ceinture boobu mosuma ceinture boobu noonu mosuma ko def drapeau chef de l'État bi hmm. ah oui defuma ko fi benn yoon loolu daf ma dab ci arène bi nii rek su ma ko gisee mu gis bunt bi jege na ma kaay ma def ko mais man damay mboot damay caxabal lépp laay bëree hmm. ñi ma xam dëggantaan xam nañ ne man kale yëpp laa mën hmm. macha allah am na solo dañuy des ci écurie ak mbapat bi rek la ñuy boole waxtaan ci ci sa carrière écurie Fass lan moo nekkoon seeni pexe bu njëkk dégg naa da ngeen doon yàq ay làmb bu ngeen ñëwee xool làmb bi baaxul ngeen indi ay pexe des fois ñu daan leen ngeen ngeen daw lan moo nekkoon seen i pexe lan. waaw pexe yi nekkul dara lu dudd écurie Fass moom booloo moo fa amoon nekk benn kenn ku nekk bu sa morom di bëre dangay jàpp ne tey yow mi yow yaay bëree doo yéene mu am defet loolu kese la woon yàq yi boo xoolee jamono yi muy dégg yàq faas bu ñu bëree bu ñu leen bëggee daan ñu kii jamono yu yaakaar naa ci jamono père mbay gi la ëppee woon quoi mais suñu génération moom Tapha Gueye combat yi mu doon bëri yëpp dafa daan ak benn combat di laa fi gis bu agul mook baaboo yi mooy bi mu taxawee ñuy xëccoo affaire yooyu noonu. mais Bada Fass dafa dañoo bari ay pexe lan lan la woon. lan si bari pexe bari pexe bi mooy da leen jaraloon. et dañ ci yàgg nag aussi Moussa Gningue ku ko xam-xam ne mook mbay Guèye la woon ba mbay Guèye bàyyi mook Tafa Guèye ba Tafa Guèye ba ma ñëw ak ñeneen ak ñeneen Birahim Ndiaye mais ay yi ay tubaabu jooreen ñoo ñëpp da daan doon ngem donc kooku yàgg bi mu ci yàgg noonu moo tax mu bari pexe et puis jaral ko da koy jaral mu ub këram un mois nekk ci àll bi ndax combat bi nga am rek. moom moom Moussa Gningue moom Moussa Gningue kon Moussa Gningue tàngoon na ba ngeen xam ko yéen waa. non si. man boog man xamoon ah mais attends ak ñeneen ñi. xamoon na affaire xamoon nañ ne kii nii mbir mi jaral na ko mais attends koo xam te ne daanaka da ngeen bokk nii rek groupe. bokkoo leen ndey ak baay bokkoo leen dara mais nga gis ni mu koy jarale fu ne lay dugg ay fu lay dem bay njabootam dugg ci àll bi mu jaral ko lool. un ci àll mois da koy des fois da koy nekk ci àll bi. Mhm. affaire bi jaral ko xam nga. mais attends loolu kese la Père Mbaye gi tamit nekk ci côté bi jaaroon na ci ba bàyyi mais attends moom itam xam na ci lu bari. Hmm. loolu kese la ñëpp maa koo nekk benn. loolu kese la amul leneen mbër yi tamit gëm seen bopp aussi kenn mbër yi nekk benn jàppante bëggante ku ci bëre sa moroom jàppale la loolu la la woon rek. ci ci mystique boobu nga xam Moussa ñu ngi doon na leen ko doxal yéen waa fas hmm. yow mës ngaa bëre combat avant combat bi Moussa wax la lii ak lii wax nañ ma ko lii ak lii gis nañ ko ci combat bi combat bi jour combat bi nga gis ni lim la waxoon nga dund ko daal. non man de du moom ma koy wax. mais ànd naa ak moom sama ay quelques combats yoo xam ne billaay wal kitaab yi ñu dem ci benn maara mu ne ma nii ngay daane te nii ngay daane waaye ci kawam fii ngay tëdd barke yonente bi bëri naa ba bàyyi amatuma lu may fen ci loolu. ànd nañ ci benn paa. sama ay ñaari combat ba ñett mu ne ma dangay ngay daan te nii ngay daane te boo daanee waa ji fii ngay tëdd ci moom te bark barke te bi noonu la demee. Mm-hmm. waaw loolu moom man dund naa ko. seen combat yi lan moo ko doon jeexal dem liggéey mbir bi wala dem wut ay muslaay. saa waay mm. liggéey bi nag ci la bokk de mais tey nii boo ma boole woon ak Balla Gaye wala Modou Lo. pour ma daan leen problème la de. mais nag xanaa xamoo boo xooleel mbër yi. galaay ji ñu sotte kook yooyu ñuy def noonu yëpp li ëpp bëtt nit ñeek wax yeeg yooyu imagine toi nga suñu combat mu war a durer trois mois saa yi soo xëyee gars yi grand place yi diw diw diw diw mais loolu te lamiñ baaxul cat baaxul loolu la rek mais jàpp mbër ba loxoom di jóg wala tànkam waaw mën nañ la jaxase sa xel tamit aussi mm-hmm. waaw yooyu moom mën naa ko gëm waaw man moom doon naa dem làmb ñu daan ma ñëw toog ni waaye mais kii du man wala may préparer combat nekk entraînement pour mbër yi may entraîner daan ma c' tout un problème mais damay dem stade mel ni du man loolu moom daf may da arrivé ma ci ay làmb yu bari. ko dal na ci ay combat waaw nga xam ne yow mii gars yi am na fu ñu la dugal tey xam ne gars yi am na fu ñu la dugal. waay Moussa Gningue moom comme bëri nga ba bàyyi am nga expérience ci làmb. Mm. sa expérience la gars yi soxla instant bii nii. Mm. sa xam-xam. Mm. bëri nga ba bàyyi. mu la doon accompagner. Mhm. gis nañ fi yeneen booy yoo xamante ne ñu ngi accompagner ay mbër. Mhm. ku mel ni Thierno Gueye. Mhm. ñoom Papis Fall bi ànd ak Gris Bordeaux ak ñeneen ak ñeneen. ñoo ngi fi. ñooñu soo leen doon méngale ak Moussa Gningue différence bi lan lay doon. non man dama daan dégg ñu ne ku la mag ëpp sagara. ñooñu dañoo ñëw fekk Moussa Gningue ci loolu. Hmm. mais ana Balla gay kañ la ay musaa hmm. Moussa Gningue depuis ñoom Mbaye mais mënuñu bokk tamit aussi. bokkul ak ñooñu non mënuñu bokk. moo leen gën a xam mystique non moo leen ko gën a xam mënuñu bokk. mënoo yow nit ki jiitu la ci dara. ay années soixante ay soixante dix ba léegi nii ay soixante dix ba léegi nii te ci loolu lay dox. Hmm. ba léegi nii. waaw léegi nga ñëw fekk ci nit kooku noonu mais mënoo ko ci raw tamit aussi. Hmm. non mais pourtant ñoom ñoom lañ jiñ galaaj bari de ñoom lañ jàpp ni sax ñoom ñooy bëree ci galaaj ñoo gën a bari takkaay. yor béjjén fii ay affaire mbuusu xonk ak. waaw xam nga xam nga lu lu tax ñu loolu gën a bari ah c'est parce que xaalis bi booy génne léegi ak bi am ci làmba ji jamono yi amul mais ay cent millions cent cinquante millions nga war a mën a génne benn mais suñu ay combat ñun jamono yooyu noonu gën ngaa bari ay carte Tapha Gueye ay combat bi mu njëkk am bi gën a am xaalis mooy huit millions yi mu bërëg Tyson bu njëkk ba seen combat bu njëkk ba jamono yu combat yi ay cinq millions six millions trois millions yooyu la woon hmm. mais ko ku ne dem indi mais loolu dina bari. Hmm. <laughs> loolu la rek. loolu am na solo. Hmm. ñu des ci waxtaan bi rek ba léegi ak yi nga xamante ni. yu paase woon Mbapat wax nga ko sànq sa combat ak Yékini. wax nga tamit daan nga Tyson deux yeneen mbër yi kan nga ci bëreel mbapat. dama ne mbapat sa ñoom Xaadim sama génération Xaadim Ndiaye moom li ma ko daan mbapat bari na moom mosuma sax daan mbapat. Hmm. mosuma daan mbapat baabooy daan naa kom mbapat trois fois. Hmm. Zallo. Euh, asafra Xaadim Ndiaye. Xaadim Ndiaye li ma ko daan mënuma ko wañ parce que moom dane woon mënuma ko fu ma fekk dëkk ma. saay bu ñu bëree dama koy daan. ngay jàpp di daan rek benn mat suñu la ñu mës a def mbëppatu Serigne Ndiaye fii air liquide. Hmm. Tyson ñaari yoon yi ñu bëree dama ko daan. Bombardier bëree benn bi gël tàppe la. benn bi Moussa mooy 93 Tafa Gueye bi ku kii daane fas fii. mook Baboy laa tegale ñetti mook Baboy Pape Cissé. Hmm. magu Baboy. waaw ñoom ñett laa tegale gën a guddi. moom Baboy Tyson. Baboy Tyson Pape Cissé. ci benn guddi laa leen tegale fas fii Tapha mën na ma seedeel loolu. Bombardier bëre ngeen mbapat. Bombardier non non. Jules Balde. Jules Balde arène la ñu bëree match nul. ok Ousmane Diop bëre ngeen mbapat. Ousmane Diop mbapat mbapat waaw Tëngéej. Tëngéej. saa waay man mbapat dama daan dem ay Tëngéej ay Pikine dafa am benn màggu Tapha Gueye xëy na peut-être ni anciens yi ñoo koy xam ku tudd Pape Diop Pape Gueye. Pape Gueye fu mu déggoon mbapat ne diwa ko téye ah bu ñëwee entraînement ne ma ngoon nañ leen dem foofu. Mhm. te bu ñu demee damay daan ña fa nekk. li may wax ni kañ moom dafa am ay seede quoi. Eumeu Sène fekkante ngeen mbapat wala. Eumeu Sène non non. moom ñoom Ousa la woon. Oh, oh, Eumeu Sène moom Ousa la Mbaye Diouf. Mhm. ñoom ñoo bokk génération. waaw ñoom la bokkal génération. Mhm. Serigne Ndiaye mi nga wax ni bëri ngeen mbapat. non Serigne Ndiaye génération ñoom ay ba Balla ba ba ba kii Balla Bey mu mag. ñoo la ñooñu la. ñooñu ñoo la mag waaw. arène nga fekkante ak mm. ñoom. ok loolu am na solo macha allah. Mm. dañuy des ci écurie Fass. Mm. nga am fa ay poulain yoo fa nekkal. ñoom Roc Mbalax. Gris Bordeaux. ci Gris Bordeaux. bi muy ñëw écurie Fass fi la la fekk fa la ma fekk. fa la jànge bi muy jàng boobu ngay wax noonu écurie Fass la ma fekk. Rock Mbalax ci moom la giri jaare ba ñëw écurie mais dafa am jamono boo xam ne Rock Mbalax dafa amoon buur su mu nekk France man ma des fi ak booy yi Tafa yi jiitu man maa ci topp yenn booy yépp man mii sax pour ma gisoon Tafa Gueye problème la parce que boobu maa ngi door noonu moom dem na ba nekk ci kaw ñu topp ci ginnaawam su bëree ba pare mun naa wax ne ñun daanaka balaa ñu koy gisaat mu am komba pour war a bëreewaat boobu nag booy man maa leen doon mobiliser bu làmb ji tëjee de tëjuñu bu ubbee ñu ngi ci bu ñëwee fekk ñu ci bu demee fi la ñuy bàyyi. booy yëpp man def ak booy waaw waaw. parce que boobu gisoon naa ne man war naa mën a def ci làmb ji dara moo tax ñun daawuñu tëj ay Balla Diouf Pap Tafa Gueye numéro 2 Jili Mbaye. <laughs> Gris Bordeaux. yàlla xam ne boo yooyu saa bu ñu xëyoon sama kër la ñuy ñëw fa la ñu daan ndékkee ñooy ànd dem entraînement ñoo daan ñoo daan nekk chaque jour tout le temps ñoo daan nekk Tafa Gueye moom. macha allah yàlla yaayam ak papaam yàlla na leen yara yërëm bajanam moo ko yoroon daf ma woon jox ma ko ne ma kii ay yaxam laa la laaj sama kër dëkk na fa presque huit ans. Tapha Guèye 2 Tapha Guèye 2 ci laay ji li mbay ñëw Bala Diouf ci Xaadim Ndiaye la nekkoon bi may bëri Xaadim Ndiaye suñu premier combat non suñu deuxième combat Xaadim Ndiaye laa ndal suur boobu noonu saaga bu ne saaga na ma ko lu ne def na ma ko. bi ma daanee Xaadim Ndiaye ci la bàyyi écrit Mermoz di ma fréquenté Medina fële ba maa dëkk côté ba la rue 15. di ma fréquenté ba ci la ñëwee écurie Fass dégg naa ko benn suur nag muy expliqué leneen quoi mais garaawul loolu passé na. Ah, mais yàlla xam ne ni ma la wax ni noonu la demee. ok Gris dañ ko jël interview ñu mu wax fi mu jaar ak yéen. Hmm. ku mel ni yow ku mel ni Rock Mbalax ku hmm. mel ni Tafa Gueye. Hmm. mu ne yéen ñëpp seen suq la mas a doon. ku ci nekk mu ne sang la la deful. ban relation nga amoon ak moom. waaw mooy li ma la wax rek xam nga Gris Bordeaux moo Rock Mbalax ñoo bokk dëkk si cëriñ fii moom Rock Mbalax la doon côtoyé ba ñëw écurie Fass Rock Mbalax am bourse dem France bàyyi ko fa mu na nekk ci man yàgg nañu ma ak moom ah. génn boobu ma génnoon fas moo ñu taxale man ak moom boo xoolee départu làmbam vitesse bi ma daan bëree moom la daan bëree léegi la ko rëcc nii ceinture bi mu daan def bi muy def Antoine Baaxum da ko takk dala daan këf tëll dem yoonam boo xoolee ay combat ay Lac de Guiers 1 ay Antoine Bakhoum gars yu bari loolu la leen daane fii mhm. te loolu man la doon imité ba ba mën loolu mais vitesse boobu mu amoon noonu dafa dem benn instant mu rëcc ko. maninam maninam loolu mooy maninam dem na bëri na ay ñaari combat yoo xam ne xeex na ci xeex gars yi naan dafa mun xeex Gris dafa mun xeex mu topp xeex bi bu ñëwee au lieu mu fàttaleku ne moom bëre moo ko mayoon ndam yi mu daan mu topp xeex bi dootul nangoo song ba loolu rëccoon ko. Mhm. waaw noonu la demee waaw mais yàgg nekk yow déggal la. waaw yàgg naa nekk man ñu daan bokk di entraîner fu ma daan mbapat bu ñu daan dem ñoo daan nekk xam nga ñu nekk samay booy quoi. ñoom ñooñu ñooñu nga limoon kan nga ëppoon yaakaar ci moom. que ni moom moomu noonu. ok parce que ñeneen ñi mënoon nañu bëre quoi mais làmb taay da ci baax quoi am taay ñeneen ñi mënoon nañu bëre mais seen taay peut-être. man de kenn rek laa ci gis ko am taay boobu noonu ñaar boog mooy muy Tafa muy Eumeu Sène ak Modou mais ñeneen ñi ci des ñëpp mën nañu neex nii mais mënuñu ub làmb mais am na loo xam ne li ma la wax rek don lay nekk yàlla moo la koy may mais giri boobu jamono yooyu ay Tafa Gueye 2 moo fa nekkoon Bala Diouf ay Djili mbay affaire yooyu ñoom ñoo fa nekkoon. ay Ousa Sow ay ñoom ñoo fa nekkoon am euh, giri nekk fa tamit mën bëre comme ñoom ëpp leen doole aussi. ba pare am taay bi mu am. boobu Papa Sow anam. boobu Papa Sow Papa boobu ñu nekkul écurie Fass. ok par la suite laa ko fay gis quoi. boobu Oussa Sow moo fa nekkoon. ok waaw am na solo. ñu des ci écurie Fass war a sax ci écurie mooy ñu dem benn moment nga ñëwaat. waaw sa retour. écurie mm-hmm. lan moo ko waral. waaw man de dama toog benn jour. am na benn euh, am na ku ñu doon wax Sadio kamara xëy na peut-être ñu bari xamuñu ko. magu Guèye Camara Guèye Camara moom gars yi war nañ ko xam mi ngi équipe mhm. face mhm. magam amoon nañ seen beneen rak bu ñuy wax kii Mala Mala Camara des fois mu ñëw ne ma daan yi ngay daanu ni Père Mbaye Guèye da koy metti nee na bu ñu mënoon fexe ba nga ñëwaat parce que xam na ne ñi lay daan yaa leen man quoi mais jafe-jafe moo la topp moom xam na la bu baax xam na sa talaa ku la rectifier tuuti noonu noonu mu ñëw di ma expliquer des fois mu ne per ne na nga ñëwaat affaire yooyu ay Moussa ñu ngi noonu daal laa def ba delluwaat écurie bi ma demaat écurie Fass yàlla dogal sama premier combat ñu mobiliser ñëpp jàpp ci mooy contre Ousmane Diop yàlla may ma ndam. mooy bi nga ko yénoo. waaw ma war a bëreeg Boy Kaïré Casamance. Mhm. ñu dem ñu def match nul mu daan mu songama ñu def benn ak soo ma def ka trois AP. arbitre bi jox ko victoire foog ne kàttappi laa def après ñu ñu bind recours. ñu kase ñu kase ko quoi. Mhm. ñu dem dem dem ba mu war a bëri ak siixu Diène. voilà ma bëri ak Cheikhou Diène mu daan ma. Mhm. après ci laa waat di war a bëriwaat ak Boy Kayre yaakaar naa boobu laa génn écrifasse quoi. xam nga dafa nekk loo xamante ne expliqué naa ko expliqué. mais combat boobu écrifasse nga ko bëree sa combat ak ak ak bu mujj bi. sama écurie Fass nga ko bëree. sama combat ak Boy Kaare bu mujj si. Hmm. Fass laa ko bëree. un jour combat Modou Lo Issa Pouye. merci boobu laa ko bëree boobu maa ngi Fass ci combat boobu après ci laa ginewaate quoi la ci xew-xew ci yàllaa ko dogale woon noonu mais làmba la paase na bon ci laa bàyyi woon génn quoi man ak Rock Mbalax ñu créé pencum Ndakaaru. Hmm. voilà yow ak Rock Mbalax ñaari champion yi doon yéen lan moo war tax ngeen créé écurie ñëpp doon xaar écurie bi ñu tudd ko. comme ni ñuy tuddee école de l'élite Balla Gaye comme ni ñuy tuddee écurie Fass bi ngeen nekkoon comme ni ñuy tuddee Soumbédioune écurie ba amul suite. waaw amul takk takkul mboob la def. voilà tàkk mboob la def parce que euh, jamono xam nga nag tamit aussi liñ naan paak lu mu ñaw ñaw. du tee ñu daas ko du tee daas ko et puis ngay entraîner sa bopp yombul tamit aussi parce que des fois mu mu mu mu mu métti nga bàyyi amul kon mag bu nekk suñu ginnaaw alors tamit aussi. écrit bi taxawoon na mais jàpp bi desoon na xam nga mu yow saay écrit écrit li ko téye yombul de. est-ce que woo la noonu écrit faj mer rek. non du woon faj mer xam tamit aussi doo nekk fenn ba jóge fa di toog bàyyi woo bëre ngay toog di yaacaaral noonu. di toog di xoole il faut nga seet loo def. voilà euh, kuy dem liy dem nag yàlla moo xam yow da ngay sabablu rek yàlla mooy dogal mu dem loolu lañu bëggoon yàlla dogalu ko après demee na noonu quoi. ok am na solo. lan moo la ci gën a gën a gën a gën a metti loo xamante ni dund nga ko ci sa carrière nga ni man di lii bu doon démb la du ko def. waaw xam nga mooy su ma waxee gaa yi duñu comprendre fu may waxee quoi mooy génn bi ma génn écurie bu jëkk ba yaakaar naa ci biir commencement bi expliqué naa ko. nekkul kon sama coobare lu ma waroon def lu ma bëggoon def. moo la gën metti ci sa carrière moo ma gën a metti parce que. li nga bàyyi écurie Fass bu am la ba ma jógee écurie Fass dégg naa ci lu ne ñu naan ay mbokk ma ko génne jàppale ko lu ne la ñuy wax or ko demul noonu yàlla xam na billaayul kitaab bi nii la demee te père Mbaye Guèye moom ma expliqué ni mu demee. booy boobu noonu moo jaxase pétale yi woo Tafa Guèye wax ko ko ne Saal nee na day bàyyi Iri Fass dañuy yóbbaale mi man dem ma te billaayul kitaab bi demewul noonu. ci côté ah. loolu moo la gën a metti ci sa carrière la am li nga bàyyi. waaw kere sama écrit yàlla may ma sama premier combat ma daan ma Mohamed Ali après may bëreek mu Bombardier mu daan ma ci la affaire yi commencé jaxasoo xam nga loolu daal moom ma ci métti parce que ñu bari daan nañ ma fi man wóor na ma man maa leen mën lamba nag dafa doy loo doon loo xam ne mën ngaa dem bëre mbër nga mën ko fuuf mu daan la. souvenir bu neex war nga ci dund. waaw souvenir yi ma am ci làmba walaay le fait que ma nekk booy topp ci tànku Moustapha Gueye dem ba ñu bokk ay adversaire ngëm-ngëm boobu ma amoon ak volonté bi ma amoon ba yàlla dimbal ma ma def loolu neex na ma torop hmm. Hmm. am na lu ma am lu ma fàtte sax ci mbapat bi sa combat ak Yékini waaw sama combat ak Yékini Fatick boobu xam nga Yékini man foofu laa ko njëkkee gis ok parce que foofu ñaari drapeau lañ fa tegoon drapeau chef de l' état drapeau assemblée nationale drapeau assemblée nationale bi lañ jëkkee bëree man maa ko jël parce que dañ defoon poids léger poids lourd roog mbalax am na waa ju mu daj jël du dëkk euh, fale côté fële fi yëkk ni dëkk Joal mm-hmm. roog moo jëloon lesse bi man maa jëloon lourd bi ñu dem drapeau chef encore man maa ko jëloon parce que dañu defoon poids léger poids lourd bi dra drapeau assemblée bi jeexee yàlla dogal ma jël ko dañu def toute catégorie nax boobu tamit man ma jël ko. sa combat ak Yékini mas nañ koo dox arène. waaw sama combat ak Yékini balaa may bëreeg Mohamed Ali de doon nañ ko dox mais mu jëwal kon sotti ah man boog ñëwoon nañ ci man wax ma ko xam ma nag moom. nga daa xanaa ci yow la yàqoo. non non man d'accordoon naa balaa may bëreeg Mohamed Ali. waaw man d'accord naa waaw am na solo loolu ci sa carrière la. nga mm. xamante ne moom la ñuy waajal. muy les mille deux de rock mbalax. li ñu war a interpeller état la. parce que njariñ la loo xamante ne. ay doomu Sénégal ñoo ko mën a jëriñoo ëllëg. le vingt neuf février. place 5-5 lañ koy defee. kon xam nga ne noo def ay galañu 5-5 génn. kàttanu yàlla naa teew. te damay bokk sax ci prise yi. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.